mbokk yi tey nag dañuy waxtaanee ngooñ ngooñu gerte xam ngeen njëriñ ji mu am lool ci mbayum gerte gi fii nag dinañ xool effet bi engrais te diis am ci kaw xobu gerte gi ñu ànd ceeg baykat bu mu fekkoon waalo. grand nagam va naka mu yaa ngi naka waa Ndakaaru mbaa ñu ngi am jàmm. naka engrais bi baa mi ngi dox ah man de bu ñëpp mel na man incha allah dana dox xam naa ni sama deuxième tool bi yëpp ak sama troisième tool yëpp si laa koy engrais incha allah même ñàmbi bi yaakaar naa si laa engrais daaw ma ko engrais ñàmbi mais bii moom ba ma ko amee dootuma sonn incha allah rabi naa gis nga fleur bi léegi nu mel gis nga fleur gerte gi léegi. une semaine la amagum daal jour ba mu ko irrigué dellu seegul sax parce que li ma premier li ma defoon première journée maa ngi koy soog am dugal tey laa koy soog am dugal ndox ni tey laa taal ni sama benn moto pompe pour dugal ko ndox waaw léegi daal ñi ngi surtout ku mel ne man maa ngi ñaan yàlla jàmm ak jàmmoo maa ngi ñaan yàlla tawféex yàlla defal la si engrais bi lu weesu sa njort tabarakallahu ndaxte ah man de man wax dëgg yàlla gis naa si résultat te demaguma fenn parce que gerte moom bu fleur bi normalé rek li si des moom amatul problème yàlla la